mooy jafe-jafe yi ni mu andee jafe-jafe yi nag mooy ñun dañ yoroon suñu fon suñu suñu forage boo xam ne euh, suñu forage boo xam ne asifor yi ñoo ko yoroon ñu ñëw état bu Sénégal jox leen ko ñoom waa Aquatec ci teewaayu OFOR ñu signé ay contrat yoo xam ne euh, respecté wuñ ko dañu indil ay facture yoo xam ne euh, dañ ay estimation yu jaaru yoon ay nit yoo xam ne junni lañ doon fay ñu leen di estimer ay ay facture ñetti junni man war leen sama facture léegi 15000 lañ doon fay ñu ñëw di ñu fayeeku quarante mille bi seeraay bi amee nag ñu dugg di xeex loolu lañ gis ay catastrophe bi gën rey ci biir ci loolu nag ñu ngi sant sous-préfet ndax may nañu doole jàppale ñu woon ñu kilifa Aquatec bañ taseeg ñoom ñeenti yoon ci ay waxtaan yoo xam ne euh, comme ni ko sëñ Basir waxee tënkuwul ci ñoom ndax bi ci mujj directeur Aquatec ñëw na fi biñ ne tabaski ñetti fan moo ci des bu ñëwee sous-préfet daf na ko def nañ fi ñetti ndaje bii mooy ñetteelu ndaje bi dañ bëgg mbiri leer tege ci yoon léegi mu ne naa ko wax jafe-jafe yi ñu dund yi ñu dund ci ci ci ci Ndulo ak li ko war ndax Ndulo 55 villages la forage bi 55 villages lay alimenté. ma ne ko ma ne ko directeur Aquatec monsieur Diop ma ne ko ñun dañu amoon ay ay problème facture yu cher biñ koy jooy ñu dem ba ci biir gis ne euh, asifor yi seen président mi ngi toog buubu da ngeen si ñëw ak ñoom contrat ne da ngeen di changé da ngeen di yokk qualité ndox mi ak quantité bi. réseau bi da ngeen koy sancé satadoo bi da ngeen koy raxas ak 6 mois toog nañ 2 ans raxasuñ satadoo bi buñ koy raxas boo ñëwee fii liñ ci génneel xaw naa toll ni niñ amul eau de javel microbe yi di ji jàllaañoo ci biir léegi da ngeen waxoon tamit ne am na pour pourcentage boo xam ne da ngeen koy jox communes yi donte du ñëw directement ci ñun bi mu waxee ba daane monsieur Diop ci teewaayu sous préfet maire adjoint commandant dafa ma ne li nga wax état bu Sénégal moo ko waxoon signé ñun contrat 6 mois avant élection yi ci teewaayu Mansour Faye moo ko wax te li ñu waxoon respecté wuñ ko comme ñoom état respecté wuñ li ñu waxoon ñun leen rek lañ man mooy corriger facture yi mais li nga wax yëpp mënuñu ci dara ma ne ko kon mënu leen ci dara nag ñun amatuñ li ñuy wax ak yéen bis tey état la ñuy waxal te sous mooy ki nga xam moo fi teewal état kon sous la ñu interpellé bis ni tey bàyyi la ñu suñu forance waa ñu teg ay fan nag ñu wootaat am ndaje ne ñëw ne dañ bëgg ñu dajale leen facture yi ndax dañ ko bëgg corriger altine bi passé ci lañ leen jooytu jafe-jafe bii nga xam ne am na weer ak fukki fan ak juróom ku génn fii yéen ko gisandoo ndox mi mi bal ball satadoo boo xam ne bi muy nekk fii ëpp na 40 ans boobu ñun juddoogu bu demee ba situation bi toll nii ñu ne leen nag euh, olof dafa wax ne ku am sa doom bu jigéen ñu koy nàmpal mu yooyu ngay jooy xiif bu demee ba yaaji bëgg dee luy raw luy muccal yaaji soowee ko ngay wër ñu leen kon ñun léegi talatuñu ay facture mais suñ forage bii di bëgg a daanu lañ tal ci lañ doxee nag dem ci sous-préfet benn point de biñ ko yëgee ci altine bi ñoom dañu waxoon ne pièce bi amul te frontière dafa tëj mënuguñ ko defar biñ defee biñ demee ci sous ba am autorisation point de presse bi ci lañ ñëw ñëw ci àllarba ji équipe technique ne dañuy defar pour wax ne eh, jafe-jafe bëri na ñu ko wax tey ci point de presse bi mais li ñuy wax daal Sénégal yëpp ñu koy dégg di ko wax suñu kilifam réew mooy ñun waa Ndulo dañoo takk nekk benn pour xeex Aquatech mu jëlee mu jóge fi mm-hmm. Aquatech dañ koy xeex mu jóge fi te lépp lu ñu ko jaral dinañu ko jaral. na dem li ñuy wax nag mooy bañu ñi dara pour Aquatech jóge fi comme mënuñu mënul doxal suñu forage dañ ko delloo suñuy asifor ñu doxal ko ndax ñoom bi ñu fi nekkee dañ doon jox 20 pour cent mairie bi muy 2 millions par an di dimbale poste de santé yi di dimbale école yi kon nañu ñu delloo suñu forage nañu ñu delloo suñu forage ñu koy ñaan kilifa réew yëpp di ko ñaan kilifa diine yi ndox xaw na jafe ndax réseau bi dafa màgget réseau boo xam ne am na ñeent fukki at ak juróom te ñoom bi ñëwee changé wuñ ko tuyau yi sax changé wuñ ko suñ bundu kër am na tuyau bu toj boo xam ne suñu wetu kër def na 3 mois bi ñu woowee Senghor fii laaj ko daf na ñoom du ñu changé tuyau bu toj du ñu changé compteur am nañ ne téeméeri compteur ñu wax ne baaxuñ dañ koy estimer ñun ñu ne leen léegi andul leen ñu base de données bi list bi ñun ñu wër ci population bi wax leen ñu changer ko seen bopp. defuñu ko. sous-préfet wax na leen ko ci ndaje bu mujjee bee rek li leen andil leen ñu bu ko defee askan wi ndu la ci kanam ñoom ñu dugg ci biir kër yi. jéem defar comptoir yi nga xam ne dafa dafa yàqu. moo gën ñuy dund ba pare te duñu am ndox bu baax duñu am ndox mu set. awo bee laa tudd ni membre ci ndu la ci kanam. ñëwal fii nag teewal fi jigéen ñi du am la ñu naqari torop ci suñu forage bii ndax ñun ndox mi kenn naanatu ko charrette yi bu ngeen taxawoon fii 30 minutes charrette yi fi la leen di romb di rooti ji turé di ñëw ñun moom la ñuy naan kon nag xanaa facture yi daa waroon a gën a wàññeeku mais nag daa gën a cher kër gu doon fay junni léegi yaa nga fay juróomi junni ndox mi metti na cher na ak waa teg indi wuñ fi dara loo xamante ni lu ñuy apporter dara la mais au contraire xanaa gën a seeral ndox mi ak mauvaise qualité ndox bi ñuy indil château d'eau bi dañuy toog lu mat ñaari at duñ ko raxas mm-hmm. te loolu dara jaadu si non seulement loolu dañuy toog sax dégg ñu naan Senelec ñu ngi leen yoral ay facture mm-hmm. ñaata million mm-hmm. kon ñun ak Aquatech li muy jëlee ci askan bi fan la koy dugal ñun jigéen ñi daal sonn nañ jigéenu Ndoulo sonn nañu mar nañu démb ba léegi ñu ngi ni amuñu ndox dañuy rooti sax ay charrette pour ñu jënd jaay ñu ndox charette ñu di ñu jaay ndox mu ñu mën a naan ak mu ñu mën a mu ñu mën a jëfandikoo ci biir kër yi sonn daal li ñuy ñaan fi mu toll mooy akuwaat ak nañu abal ngir yàlla te bu ko deful ba ñu joxe suñu bakkan yi pour delluwaat suñu pour jotaat suñu forage ndax forage bi ñun ba ñu juddoogul ba léegi la nekkoon du kon nag du ñu nit ba tey ñoom ñu ñëw fii pour bëgg a profité suñu kaw ñoo xam ne ay baykat lañu ay néew ju doole lañu ñu bëgg a dund suñu kaw ñun loolu ko te duñ ko def tey duñ ko def mu ñu ko Afrique,